ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. El Elhadji jàmm ci xibaar yéen yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo ci wàllu pétrole ak gaz bi bi di Sud Quotidien du ñu xamal ne pat pataaral gi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kujjeg ak ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Grand Parti ñoom nag jamono ji kàddu yi nga xam ne nag yëkkati nañ ko jëmale ko ci lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn guru mel te xam ne ne ñoom daal jamono ji lépp ci coowal pétrole li nga xam ne nag moom ci réewum pat loolee dañuy nax seen bopp yéen kaay bi dañu xamal ne ñoom kay dañoo xam le ne am na ci kuréel goo xam ne ci la bokk muy front résistance nationale kuréel la goo xam ne dañu moo di noppi gi nga xam ne daal ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci dig nekk nañ ko loolee la ko waral moo di xam ngeen ne njiitu réew bi Macky Sall gannaaw daal dialogue national bi nga xam ne nag woote woon na ko waaye te ñi nga xam ne nag

jàpp ne nag am na ay rëq-rëq yu bëri yoo xam ne mën na koo andi ci réewum Sénégal réewum Sénégal ak coow li nga xam ne nag moo fi am yéen kaay bi daal am koy andi di koy déglu gannaaw waxtu yàgg yoo xam ne nag gannaaw nag moom ba mu génnee kàddu yi nga xam ne nag yëkkati ko jëmale ko ci fànn gu dafay xam ne jamono ji wóolu na yoonu dëkkam yéene kaay bi ñu a xamal ne am na ci koo xam ne sax jot nañu koo gaañ l'évidence di ñu xamal ne nag tey jii ndongo yi nga xam ne nag moo war a def CFEE ñoo war a def CFEE jamono ji ndongo yi tey jii lañ ciy sóobu ci dëkk yu bëri ci Sénégal jamono ji nag daanaka yàmb na ndongo yi tey la ñuy amal seen CFEE man daal maa ngi fàttaliku jamonoy CFEE yeewu fajar teel fas yéene jubal fi nga xam ne nag moo di sant boo amee ñetti bekk suukar saraxeel dana cee baax ba suba.